jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu Q radio ñu dalal leen seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi ñu fesal boppi xibaar yi ni ki démb yemoo fukki fa yeeg benn si weeru novembre bés la wala bëccëg la boo xam ne dañ doon sargal ñi nga xam ne daal euh, dañ nag daanu si nag ab xare boo xam ne daal teewoon nañ ko waral British High Commissioner di rek euh, ndawal réewum li nga xam ne moo di Angleterre lëkkalu ak Gambian Legion ñoo di bokk ak daal réew yi nga xam ne bokk nañ ci rek commonwealth dal di nag sargal fàttaleku ñi nga dal ne daal ñàkkoon nañ seen bakkan si nak ab xare nga xam ne daal ay takkader lañ woon dinañ ko yatal si biir xibaar yi ñaar ak yoon amal nak ab ndaje bo xam ne ñoo nag waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne wecceeku jaww dina koy faral di indi wote ko nag di mbootaay aljana siñ United Nation bi yoon nag ñu ko amal fi nga xam ne daal moom lañ xamee si rek daal Azerbaïdjan réewum seen dëkk bi ñu xamee si rek daal bàkku ndaje mi ñu xamee ko si COP 29 réewu Gambie daal teew na wala daal am daal euh, ñoo xam ne daal teewal nañ fa réewu Gambie dinañ ko yaatal si biir xibaar yi lu toll si rek daal juróom-ñett fukk ak ñaar si rek ñoo xam ne daal ay ndongo lañ woon wala daal ay taalibe lañ woon doon nag daal sàkku xam-xamu nag yoon ak li nga xam ne moo di daal yoonal. ñoom daal ndar keppal nañ ci ne ab njàng ba nag daal daal di leen daal dinañ leen jox li nga xam ne moo di seen nag daal ab nag lijaasa si rek daal xew-xew bi nga xam ne ñu ngi leen doon jox seen ab lijaasa ki nga xam ne moom nag mooy kilifa si képp koo xam ne yaa ngi yëngu si rek mbirub yoon ak yoonal di rek Chief Justice Hassan B. Jallow moom nag daal sàkku na si rek daal ñooñu nga xam ne daal ñoom nag ñoo nag daal di ndar seen ndar keppal seen njàng bu yàggut daal nañ fexe nag seen i liggéey buñ ko def nag daal euh, nañ kon nag daal def si anam yi nga xam nag loolu la muccee li nga xam ne moo di ayib nañ fexe daal seen nag liggéey mu nag tënku ak li nga xam ne moom nag la yoon wax dinañ ko yaatal si biir xibaar yi ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu daal di yaatal la fukki fan yi ak ñaar si weeru novembre atuma 2024 di atum ñaari junne ñaar fukki ak ñeneent ñu dalal leen ci seen jotaay bu mag bi di jotaay yu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu yaatal uh, xibaar yi niki démba di rek yem ak fukki fan yeeg benn ci weeru novembre bés la wala bëccëg la boo xam ne daal at mu nekk dinañ ci nag amal ab taxaw seetlu fàttale fàttaleku sargal ay nag doomi réewu Gambeen yoo xam ne ay takkader lañ woon nga xam ne dañ nag ñàkk seen bakkan ci rek daal ab xare boo xam ne daal xewoon na lu nag daal waral euh, British High Commissioner maanaam ki nga xam ne mooy nag ndawal réewum li nga xam ne moo di Angleterre fii si biir réew li nga xam ne moo di Gambia ak kuréel gi nga xamee si Gambian Legion daal di si nag daal ànda ak réew yi nga xam ne bokk na ci rek mbootaay bi ñu xamee si Commonwealth nag amal nag ab nag ndaje sargal goo xam ne daal dañoo nag daal fàttaliku di nag sargal ay doomi réewu Gambie yoo xam ne ay takadar lañ woon nga xam ne dañ nag ñàkk seen bakkan si nga xam ne moo di ab xare xew bi nag ñu ngi doon amalee si li xam ne moo di daal sikk wala bàmmeel yi nga xam ne moo nekk foofu si diwaanu Fajara ñu xamee ko si Fajara Cemetery euh, si rek daal ab nag daal euh, xew-xew boo xam ne am na ay kilifa nag yu bëri yoo xam ne euh, teewoon nañ li nga xam ne moo daal xew-xew boobu ay nag doomi réewu Gambie yoo xam ne ay takadar lañ woon nag daal ñoom nag daal bokkoon nañ ci nag daal nag daal eh, ab xare goo xam ne daal moom lañ xamee si World War Two nga xam ne daal mu ngi nag amoon si weeru septembre atum 1939 daal di nag jeex si atum 1945 ab nag xare la goo xam daal daanaka xare bu métti la woon gannaaw bi nga xamee nag daal am na daal lu toll si daal juróom benn fukk jàpp juróom-ñett fukki million si ay doomi adama yoo xam ne ña ñàkkoon nañ seen bakkan si li nga xam ne moo di daal eh, xare eh, googu noonu Euh, ba tax na si rek li nga xam ne moo di sëkk wala daal euh, bàmmeel yi nekk foofu si diwaanu Fadiara ñu xamee ko si Fadiara Cemetery ab nag daal euh, ndaje la yoo xam ne daal ay kilifa daal teewe nañ ko doon nag sargal ay doomi réewu Gambie yi nga xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan si li nga xam ne moo di xare boobu ñu xamee si rek wool woo Euh, si rek daal ab nag ndaje goo xam ne ay kilifa nag daal yu bari nag daal di nañ ko nag daal di teewee daal di nag euh, ñaanal ak sargal ñi nga xam na ñoo di doomi réewu gam ñi nga xam ne ñoo tëdd si li nga xam ne moo di sëkk wala bàmmeel yi nga xam ne moo nekk foofu si diwaanu euh, li nga xam ne moo di Fajara si li nga xam ne moo di daal ndaje mi ki nga xam ne moom nag daal moom lañ xamee si lieutenant colonel Sigolin Hobson nga xam ne moom mooy UK's defence adviser to the Gambia euh, moom nag euh, daal dina daal dina daal yëkkati daal kàddu si li nga xam ne moo daal ndaje mi sargal doomi réewu Gambie ni nga xam ne ñoo tëdd si li nga xam ne moo daal euh, sek googu noonu ki nga xamee si Martin Norman nga xam ne moom mooy Sarre Affairs si British High Commission moom it nag daal daal dina wax ne li nga xam ne moo di xew-xew bi nga xam ne lañ doon amal doon nag sargal di fàttaliku doomi réewu Gambie yi nga xam ñëw tëdd si rek bàmmeel wala sekk yi nag lu ama am solo la te nag daal ab nag mbir la moo xam ne daal du ko musa daal di fàtte mu ñu sukkandekoo si rek li nga xam ne moo li nga xam ne moo di bàmmeel boobu ñu nekk fu si diwaanu nag daal uh, fajar wala seg googu nag nekk si rek diwaanu li nga xam ne moo di faajaram daanaka lu toll si rek daal ñaari téeméer ak ñetta si nag ay doomi réewu gàmmeen yoo xam ne daal uh, ñoo ñàkk seen bakkan si rek ab xare bi ñu xamee si wool wootu ñoo tëdd si li nga xam ne moo di daal uh, bàmmeel boobu noonu bétana daal waral government of di Gambia di nguuri réewu Gambie lëkkaloo si ak nguuri réewu Angleterre nag daal jàppane daal at mu nekk nag fukki fan yeeg benn si weeru novembre daal war nañoo sargal euh, nag takkader yi nga xam ne daal ñoo nag daal di tëdd si li nga xam ne moo di daal euh, sekk euh, yooyu noonu doomi réewu Gambie ni nga xam ne daal teewoon nañ li nga xam ne moo daal xare googu nag daal ñoom ñu ngi nag bokkoon si rek banqaas si takkader bi ñu xamee si Gambie régiment fa lañ nag daal di bokkoon nga xam ne ab banqaas si takkader la boo xam ne ñu ngi ko sosoon si atum 1901 jàpp 1958 nga xam daal daanaka si rek diggante googu nag am na daal ay doomi réewu Gàmbi yu bëri yoo xam ne daal yebaloon nañ leen ñu da teewee ji euh, xare googu ñu xamee si rek daal wool wool bette na daal at mu nekk nag nguur gi daal lëkkaloo si ak daal Gàmbi am forces nag dinañuy fàttaleku bés wala bëccëg bi nag di sargal li nga xam ne moo di doomi réewu Gambie yi nga xam ne ñoo tëdd si rek sek googu wala bàmmeel googu defense minister Serigne Modou Ndiaye nga xam ne moom mooy uh, ëmba li nga xam ne moo di daal uh, nak daal soldat uh, moom nag wax na daal dinay baax ñuy fàttaliku suñu maam yeeg suñu baay yi nga xam ne ñoo nag ñàkk seen bakkan si rek daal ab xare goo xam ne dañ ko nag daal teewoon nag xeexal seen nag daal ab réew doon xeexal nag ay nag daal doomi aadama mu daal di leen fàttaleku di leen sargal nag laal lu ama am solo la bu ñu sukkandekoo si rek daal ay kàddoom alaaji jéewru suusoo moom alaaji jëwru suusu nag mooy chairman bu Gambel Legion Association eh, daal dina eh, sàkku ne daal mu nge sàkku si li nga xam ne moo di kilifa yi war nañoo nag daal di gina a nag daal gëstu ñi nga xam ne eh, ñoo nag daal di tëdd si li nga xam ne moo di sécurité di leen sargal waaye nag ñi nga xam ne daal ñooy dunda ba léegi tamit nag daal ñu di leen bàyyi xel sargal leen di leen nag daal toppatoo bu ñu sukkandekoo si rek kàddu yi moom ki ñu xame si alaaji jëwru suusu nga xam ne moom mooy chairman of the Gambian Legion Association bu ñu sukkandikoo si rek li nga xam ne moo di ay kàddoom ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar bi lay ñaar fukk ak juróom ñeneenteelu yoon ñi amal ab ndaje boo xam ne li ko tax a jóg mooy waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne wecceku jaww ji dina koy faral di indi ñu xamee ko si climate change atum ren Euh, nag ñu di ko amalee si rek dëkk bi ñu xamee si Baku réew mi ñu xamee si rek daal Azerbaïdjan li nga xam ne moo di daal euh, penco mi nag nga xam ne ñu ngi ko duppee COP 29 ab nag ndajale la goo xam ne li faral di fa waxtaanee. Euh, mooy nag daal jafe-jafe yi nga xam ne wecceeku jaww ji dina koy faral indi yan matuwaay la si réew yi wala kilifa yi nga xam ne ñoo nga ko réew yi war war jël si li nga xam ne moo daal mbir moomu noonu réewu Gambie daal daal dina yebal ab délégation wala daal ab gàngoor goo xam ne daal dem nañ teewal réewu Gambie si li nga xam ne moo di conference boole daal penco moom nga xam ne liñ fay waxtaane daal mooy jafe yi nga xam ne wecceeku jaww ji dina koy faral di indi yan matuwaay lañ ci nag daal mun a jël mun a mucce si li nga xam ne moo di jéey yi nga xam ne dina koy nag daal faral di nag daal di indi li nga xam ne moo di daal eh, nag pencum li nga xam ne moo di ren mi ñu xamee ko si COP 29 ab nag mbir la moo xam ne daanaka si rek daal waxtoom la ñëw gannaaw bi nga xamee daal euh, daanaka nag yàgg nañoo waxtaan yan pexe yan tëral yi nag daal yéen lañ war a tëral ak tamit nag lan lañ war a nag daal di bàyyi si rek loo xam ne dina tax na daal li nga xam ne moo di jafe-jafe wécceeku jaww ji nag daal di wàññeeku loolu yëpp nag daal waxtaanee woon nañ ko si li nga xam ne moo di ay at yu weesu bi yoon nag daal daanaka nañu nag daal di feddaliwaat seen waxtaan daal di tamit nag daal seet yan nag euh, pexe la ñu gën a mun a jëmal pour daal fexe mun a daal di moytandiku jafe-jafe yi nga xam ne wecceeku jaww dina koy faral di indi réewum Azerbaïdjan nag euh, réew la joo xam ne daanaka ñoom. xew-xew bi nag daal daanaka nag daal xew-xew bu baax la si ñoom gannaaw bi nga xamee ne ñoom daanaka euh, seen nag daal mbir yëpp nag ñu ngi ko sukkandiku si rek li nga xam ne moo di daal euh, li ñu xamee si rek daal oil mu di diw ak lu ñu xamee si gaz eh, nag daanaka si rek de dee faral di jëfandikoo eh, si seen nag daal ay nak daal mbir bett na daal loolu nag daal bokk na si li nga xam ne daal dinay faral di jafe-jafe si rek wecceeku li nga xam ne moo di daal jaww ji bett na ñoom nag daal ndaje mi nag ndaje bu am solo la boo xam ne daanaka nag lépp loo xam ne dinañ ko faral daal waxtaane daal lu leen di nag njëriñ la boo fekkee daal nangu nañ ko nag daal di jëmal ab nag euh, li nga xam ne moo daal ndajeem li nga xam ne euh, moo daal ren bi tamit bokk si li nga xam ne moom lañ fay waxtaanee mu ne daal fexe li ñu waxtaanee woon daaw maanaam li nga xam ne moom lañ tënkoon ni ki daal daam ne daal war nañoo nag jàppale réew yi nga xam ne daal amuñ doole fexe nag daal ñu nag jàppale leen si li nga xam ne moo di koom wala daal koppar su ko defee ñu mun a daal di jël seen ay matuwaay mun a moytandiku jafe-jafe yi nag yi nga xam ne rek daal wécceeku jaww ji euh, dina koy nag daal faral di ko nag daal di indi li nga xam ne moo daal xew euh, xew ren nga xam ne ñu ngi ko amale si fi ñu xamee si bàkku réewum li nga xam ne euh, moo daal Azerbaïdjan nag daal jàpp nañ ne euh, daanaka nag daal si fan yi nga xam ne moom la ñu nag daal di waxtaan nag daal daanaka dina am ay mbir yu am solo yoo xam dina tukkee seen ak li nga xam ne moo di seen nag daal waxtaante nag jàpp nañ ne bu fekkee ne waxtaan yu nag daal jëmmal nañ ko nag daal amaana daal dinañ nag daal mun a muy tëndeku jafe-jafe yi nga xam ne wecceeku jaww ji dina koy nag daal faral di ko nag daal di indi ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar ki nga xam ne moom lañ dénkoon ndombal tànk bi ñu xamee si chief justice nga xam ne képp ku yëngu si mbiru yoon ak yoonal moom nag mooy sa daal kilifa ñu xamee ko si Hassan bi Jallow ni ki démb si rek daal lundi gi na ay kàddu ndénkaane jëmale ko si daal ñu bees ñoo xam ne ñoom lañ nag daal di tàggat ñu war a nag yëngu si rek wàllub yoon ak li nga xam ne moo daal yoonal daal dina nag daal dalal juróom-ñett fukk ak ñaar si nag daal ay nag nit ñu bees ñu xam ne daal bu yàggul lañ nag ndar keppal seen ab njàng si rek wàllub li nga xam ne moo di euh, yoon ak li nga xam ne moo di yoonal nga xam ne sax daal euh, ñoom nag dalal nañ leen euh, nag daal pour rek daal ñu war a nag daal di amal nag seen nag liggéeyub yoon ak li nga xam ne moo daal yoonal xew-xew bi nag ñu ngi ko doon amalee si rek li nga xam ne moo di nag daal néegu atteka bi ñu xamee si high court nekk foofu si diwaanu li nga xam ne moo di Banjul fa lañ doon amalee xew-xew bi li nga xam ne moo daal ndaje mi nag daal daanaka dañ doon nag daal di sargal doon nag jox lijaasa lu toll si daal juróom ñett fukk ak ñaar si nag ay nag taalibe yoo xam ne euh, nag dañ nag ndar keppal seen ab njàng si rek wàllu li nga xam ne moo daal yoon ak li nga xam ne moo daal euh, yoonal betana si li nga xam ne moo daal ndaje moom nga xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki démb si rek lundi gi moom Chief Justice Hassan bi Jallow nag daal euh, yëkkati na fa daal ay kaddu nag ndénkaane jëmale ko si rek daal ñu bees ñu ñi nga xam ne daal daanaka soobu nañ si rek wàllu yoon ak yoonal ndokkale na leen waaye tamit nag daal yëkkati na ay kaddu ndénkaane fàttali leen ne daal war na ñoo xam ne daal daanaka nag daal waruñu woon daal di nag daal def lu leen neex waaye nag lépp loo xam ne ñu ngi koy def daal nañ fexe nag sukkandeku si rek li nga xam ne moo di nag daal euh, yoon ak li nga xam ne moo di daal euh, yoonal mu ne nag daal naam mbirub nag yoon ak yoonal daal léegi-léegi nag dinay faral di métti léegi nag léegi nag daal euh, njàqare am waaye nag daal yow mi nga xam ne daal yaa war a def sa nag daal liggéey fexe nag sa liggéey nga nga jaarale ko si yoon tënku si li nga xam ne moo daal yoon tënku si li nga xam ne moom nag la yoon nag daal di santa ki ñu dénk ndombal tànkam ñu xamee si attorney general nekk tamit minister of justice nga xam ne moom lañ dénk mbiru yoon ak yonal Dawda A jaalo ñun lay wuyoo nekk tamit vice chair si euh, euh, general euh, legal council gi moom nag daal ak tamit yeneen si li nga xam ne moo di dal ay kilifa yoo xam ne seen xam-xam màcc si wàllu yoon yoon ak yoonal bokk na si ganu ndaje mi ñu xamee ko si Jibril Ba. ñoom ñëpp nag yëkkati nañ ay kàddu ndénkaane ak ndokkale jëmale ko si rek daal euh, ñooñu nga xam ne ak ñooy ñu bees ñooñu nga xam ne ñoom lañ dalal nag ñu war a nag yëngu si rek li nga xam ne moo di yoon ak yoonal daal dinañ leen daal ndokkale waaye tamit nag daal ñaax leen ne daal nañ fexe nag seen nag liggéey ñu nag daal def ko si anam yi nga xam ne noonu la daal di muccee nag daal ayib de tënku rek si li nga xam ne moom nag la nag daal di yoon nag daal di wax ñoom nag ñu bees ñooy daal seen nag daal eh, njàng nag daal naam eh, métti woon na daal waaye nag jamono ji nag ndar keppal nañ ko te daal jàpp nañ ne li ñu leen jàngal nag bu fekkee daal jëmmal nañ ko nag daal daanaka nag daal benn nag daal jafe-jafe daal du am seen wàllub li nga xam ne moo di daal eh, liggéey Aysatu Jaasi nga xam ne moom daanaka moo gën a ràññeeku si rek daal ñoom juróom-ñett fukk ñaar ñu daal moo si gën a ràññeeku si rek wàllub li nga xam ne moo daal xarañteef daanaka nag daal daanaka Euh, wax nañu daal euh, moo gën a xarañ daal si rek ñoom ñi nga xam ne ñoo nag ndarkal ndarkeppal seen ab njàngal ñu toll si rek daal juróom-ñett fukk ak ñaar nga xam ne daanaka ay nag raay yu bëri nag lañ teg si rek loxoom pour daal sargal ko si nag daal xarañteef bi nga xam ne daal am na ko si diiru euh, njàng bi nga xam ne mu ngi doon jàng mbirum nag yoon ak li nga xam ne moo di yoonal yëkkati na fa kàddu moom ay satu jaase turi turi li nga xam ne moo di ay naataangoom daal dina njëkk sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di ay njobootam nag sant nag ñi yilif daara ji nga xam ne ñooy nag daal tàggat ñi nga xam ne ñooy yëngu si rek wàllub yoon ak li nga xam ne moo daal yoonal mu daal si turi nag ay nag naataangoom nag daal Euh, daal dina war daal euh, mu ngi nag daal euh, dig seeni ay kilifa ne daal ñoom nag daal dégg nañ nag daal ndénkaane tam daal seen nag liggéey dinañ fexe def ko si nag li nga xam ne daal moo di anam yi nga xam ne la mu ci ayib fexe nag di tënku si li nga xam ne moo di yoon ne daal dégg nañ ndénkaane yi nga xam ne jógee koo na si ki nga xam ne moo di Chief Justice Assane bi Jallow ak yeneen i kilifa te nag daal ñoom kili ndénkaane yooyu dégg nañ ko wala daal toqana si rek nopp nag daal seen nag nopp yu baax yi bu ñu sukkandeku rek si kaddu bi moom ki ñu xamee si Aïssatou Dias yi nga xam ne daal daanaka moo gën a ràññeeku si rek daal ñoom juróom ñett fukk yeeg ñaar ñi nga xam ne ñoo nag ndar keppal seen i ab njàng si rek wàllub yoon ak yoonal ñu leen doon nag daal sargal ni ki démb si rek daal li nga xam ne moo di daal néegu atteka bi ñu xamee si high court ni ko si diwaanu li nga xam ne moo di daal Banjul beneen xibaar ministre ministre ministre of health di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wérgu yarami askan wi niki démb si rek daal londi gi Ahmadou Lamine Samate noonu lay wuyoo teewee na ab nag ndaje goo xam ne dañ doon nag daal di dalloo nag daal ab nag ñakku wala ab toqantal goo xam ne war nañ koo nag daal di tàmbali daal pour rek daal wër réew mi fexe nag daal di nag daal di toqantal ay nag euh, tuut tànk wala ay xale yoo xam ne seeni at weesuwut euh, juróomi at euh, daal di leen nag jox toqantal yoo xam ne dina leen muccal si rek jàngoro jooju ñu xamee si polio di rek feebaru li nga xam ne moo daal lafeñ li nga xam ne moo daal ubbite nag campagne wala ubbite ndaje mi nag niki démb si loolu ndigi lañ ko amal ñu ko doon amalee si rek béréb fajukaay bi ñu xamee si Fajikunda Major Health Center fa lañ doon amalee li nga xam ne Eh, moo di daal eh, ubbite nag daal campagne wala ubbite nag daal xew-xew bi wala ubbite nag yëngute gi nga xam ne daanaka euh, war nañ koo nag daal di tàmbali dina ko wër réew mi daal toqantal ay xale yi nga xam ne seeni ay at nag daal weesuwut euh, wala daal ëpput li nga xam ne moo di daal euh, juróomi li nga xam ne moo di at li waral ñoom ministry of health bi nga xam ne ñoom lañ tënk wér gu yaram askan wi war nag tàmbali nag daal mbir mi mooy nag dañ nag nemmeeku ne naam nag xeex gi nag daal sori woon nañ si lool si rek xeex jàngoro jooju ñu xamee si polio waaye nag mel na mel na ni xeex gi nag daal jeexagu naaw bi nga xamee ne dañ nag nemmeeku ne ba léegi jàngoro jooju nag nemmeeku nañ dal dafa dellu si waat wala dal ba léegi mu ngi si biir li nga xam ne moo réew mi ñu waral lu waral ñu nar nar a dàbbaliwaat nag pour rek wër réew mi dina toqandal xale yi wala tuut tànka yi nag daal yi nga xam seen at ëpput wala weesuwut juróomi at nag daal pour rek mun muccal si rek jangoro jooju ñu xamee si polio li nga xam ne moo di campagne dal, wala daal yëngatu gi nag war nañ ko amal digante fukki fan yeeg ñaar jàpp fukki fan yeeg juróom si weeru li nga xam ne novembre bette na eh, si rek daal ndaje moom nga xam ne ñu ko doon amal si Fajikunda Health Center Moussa Camara moom nag mooy Regional Director of Health Services for Western Region 1 moom nag daal dina dalal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo war a def liggéey gi si rek li nga xam ne moo daal diwaanam gi waaye tamit sant na partenaires yi maanaam àndandoor yi nga xam ne ñooy jàppale Ministry of Health bi bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wér gu yaram askan wi si loo xam ne daal bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wér gu yaram askan wi soobu nañ si Dr Ahmadou Lamine Samaté moom mooy ministre of health di jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér yaram askan wi moom sax daal lañ cëralee mu nag daal di njëkk joxe toqantal gi jox ko nag ab nag tout tànka euh, moom nag wax na ne li nga xam ne moo di nag toqantal bi nag bu am solo la boo xam dafa tax nag daal ñu muccal tout tànka yi wal xale yi si jàngoro yooyu ñu xamee si rek daal polio di feebaru li nga xam ne moo daal euh, lafeñ li nga xam ne euh, moo nag daal campagne bi nga xam ne moom la war a tàmbali wala daal xew bi nga xam ne moom nag la ñu war a tàmbali yéene bi mooy nag daal bugg nañu nag daal toqantal lu ëpp ñeneenti téeméer ñaar fukk juróom benn junne me si ay tuut tànk wala ay xale yoo xam ne nag bëggoon nañ leen a jox li nga xam ne moo di at ay toqantal ay xale yoo xam ne seen i ay at weesuur wala ëpput li nga xam ne moo daal juróomi at te nag wax na daal seen nag mbir mi niñ koy defee maanaam dinañ wër réew mi maanaam dinañ dugg a këroo kër euh, bunta euh, bunti néeg bu nekk daal dinañ fa taxaw euh, daal di fugg nag njaboot yi nag daal fexe nag daal xale yi nga xam ne seen ay at weesuur wala ëpput juróomi at nag daal leen toqantal yi nga xam ne dina tax daal ñu nag daal di mucc si li nga xam ne moo di daal jàngoro ji ñu xamee si polio di feebaru lafeñ xam nañu daal dinañ dem si rek daal penc yëpp mu di Bantabasi yi dinañ dem euh, si ferry crossing point si maanaam fi nga xam ne moo di daal euh, fi ferry di teeree euh, foofu yëpp dinañ fanaan fépp foo xam ne daal askan dinañ fay dajaloo marché yeeg li nga xam ne moo di school si di daara yi ak daal fépp foo xam ne daal askan dinañ fay faral di dajaloo fépp foo xam ne daal bu ñu fa demee daal dinañ fa fekk ab tuut tànka wala ab xale boo xam ne atam weesul wala ëpp juróomi at daal dinañ fa dem na docteur Nafisa Binti Safiq moom nag mooy UNICEF rep bi maanaam moom moo togal mbootaay boobu nga xam ne mooy saytu mbiru tuut tànk si àddina si mo leen toogal fii si biir réew mi moom nag ak ak docteur Oumy Diagne euh, ñoom ñëpp nag daal daal dinañ nag daal di wax ne daal euh, mbootaay yi nag dinañ wéyandi nag jàppale réew li nga xam ne moo daal Gambia euh, su ko defee nag daal lépp loo xam ne sumba nañ ko mun nag jëm si rek wàllu wérgu yaram askan surtout tout tànk yi dinañ nag wéyandi di leen nag daal di si di leen si nag daal di jàppale bu ñu sukkandekoo si rek li nga xam ne moo daal seen ay euh, kàddu Gambia nag bokkoon na si réew yoo xam daal waxoon nañ ne jàngoro ñu xamee si polio wala feebaru la feñ bi nag daal xamle woon nañu daal jeexoon na fi waaye nag mel na ni mbir mi nag dafa nag dellusiwaat fi si biir waral ñu nag daal nara daal di dàbbaliwaat nag xeex bi na Dieynaba Balde nga xam ne moom public health officer la euh, bokk si ñi nga xam ne sax ñooy liggéey si rek euh, bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wér-gu-yaram askan wi moom si rek xew-xew bi nag daal daal dina profité wala porox ndollu ñu nag daal di toqantal li nga xam ne moo di ab nag tout tànka wala daal ab daal doomam bu jigéen euh, biñ ko toqantalee doomam bu jigéen nag mu ne daal mu ngi nag ñaax ñi nga xam ne rek ñoo di moroomi jigéenam yi nga xam ne ay yaay lañ am nag ay doom yoo xam ne seen ay at weesuwul wala ëpp juróomi at ngelawaay euh, nañ fexe nag daal euh, ñu nag daal fexe seen i ay doom nag ñu toqantal leen li nga xam ne moo di nag daal euh, toqantal bi nga xam ne dina tax nag daal seen i yooyu mun a mucc si li nga xam ne moo di jàngoro jooyu ñu xamee si rek daal polio li nga xam ne moo toqantal bi ñu xamee si oral polio vaccine bi OBV ab toqantal la goo xam ne nag daal bu nag daal baax la boo xam ne daal daanaka bu ñu nag daal ràññee la te tamit nag daal amul nag benn jafe-jafe boo xam dina ko indil li nga xam ne moo di daal euh, tout tànk bi nga xam ne lañ ko nag daal di war a jo ba kilifa yi nga xam ñoo ngànk wér gu yaram askan dal ñu ne daal ñu ngi nag daal ñaan askan bi ne daal nañ fexe nag seen i doom yi nag daal nañ fexe nag daal ñu jotee si li nga xam ne moo di daal toqantal yi bu ñu sukkandekoo daal si seen i li nga xam ne moo di ab càkkuteef si xibaar gu mujj gi mujj gi di xibaaru li nga xam ne moo daal euh, tàggat yaram football team bi ñu xamee si Heart FC ñoom nag daal euh, lañ daal di jox li nga xam ne moo daal ab nag ndam gannaaw bi nga xam ne am nañ ab ndam si euh, rek daal jongantey football boo xam ne ñu ngi ko doon amalee foofu si rek diwaanu li nga xam ne moo daal Tujereng si rek daal ñoom nag daal ñoo jël ndam. si kaw football team bi ñu xamee si Aminas Gaz gannaaw bi nga xam ne daanaka si rek li nga xam ne moo di jongante yi nga xam ne ñu ko doon amal si rek daal jongante football bi daanaka nag daal euh, ñoom ñaari football team yëpp daal kenn ku nekk daal dafa nag daal dugal benn bal gannaaw gi ñu amal loolu ñu xamee si penalty euh, shootout bi ñu ko amalee nag daal ñoom Heart FC nag daal ñoom nag daanaka seen nag ñeneente ñeneenti li nga xam ne moo di kicks yëpp nag daal wala seen ñeneenti dóor yëpp dañ ko dugal ñi nga xam ne eh, ñoo di Aminas Gas nag daal daanaka ñoom ñaar rek dak lañ daal di dugal waral ñoom ñi nga xam ne ñoo di Hard FC daal mujjee jël li nga xam ne moo daal eh, ndam li li nga xam ne moo di daal euh, football euh, euh, football tournament bi nga xam ne moom lañ doon amal foofu si di diwaanu li nga xam ne moo di daal tujje nag daal daanaka nag daal wax nañ ne si rek biir li nga xam ne moo daal jongante bi nag daanaka ñoom ñaari football team yëpp nag daal war na wan nañ seen nag daal boppa si li nga xam ne moo daal biir li nga xam ne moo di daal jongante bi si rek daal xaaj bu njëkk bi daanaka bi nga xam ne daal daanaka euh, jongante bi dem na ba am fanweeri minute ak euh, juróom-ñaar euh, si la nag ñi nga xam ne daal ñoo di Heart FC daal daal di dugal seen nag daal li nga xam ne moo di seen nag bal bu njëkk si wala daal lakka li nga xam ne moo di daal caax yi waaye nag bi nga xam daal jongante bi nag dem nañ ba si rek second half bi moo di daal ñaareelu li nga xam ne moo di xaaj bi ki ñu xamee si Adama Kamara bu Aminas Gas FC moom it daal si la nag daal di fayu moom mi nag daal di dugal bal si li nga xam ne moo di caaxu li nga xam ne eh, moo di Heart FC beten daal waral ñoom ñëpp nag daal eh, si jamono ju kenn ku nekk si ñoom nag am benn bal eh, ki ñu xamee si Siyaka Mané nga xam ne moom mooy head coach bu Heart FC wax ne daal ndam li nga xam ne daal ay ndawam nag am nañ ko nag daal mbégte ak kontante la si am gannaaw bi nga xam ne mbir moo xam ne ay ndawam nag daal lu ñu nag jëf la mun am nag li nga xam ne moo di ndam li Abdoulaye Seydi moom mooy head coach wala daal moom moo jiite Amines eh, Amines Gas FC mu daal mbetteel la am eh, bu ñu sukkandeko si ay kàddoom gannaaw bi nga xam ne daal war daal ay ndawam daal waroon nañoo góorgóorlu gannaaw bi nga xam ne daal seentu wutoon ne daal mbir mi nii la moo demee Dawda Diallo nga xam ne moom mooy attorney general and minister of justice mu di jëwne ji ñu dénk wàllu yoon ak yoonal nga xam ne sax moom mu ngi dëkkee foofu si diwaanu Tuujareng eh, Estate ne sax moom moo sponsor wala daal moom moo dugal kopparam si li nga xam ne moo di jongante football boobu moom nag yëkkati na fa kàddu daal daal di wane mbégteem ak kontaanteem si rek li nga xam ne nu la tournament bi wala daal jongante football bu nag daal amee si rek daal jàmm ak salaam nga xam daal amoon nag benn jafe-jafe boo xam ne daal am na ko mu ne lii dafaa tax daal askan wi daal di nag daal di bennoo di nag lëkkaloo eh, te tamit nag xam ne ñooy yëngu si rek wàllu li nga xam ne moo di a wone seen nag li nga xam ne modi man man si rek li nga xam ne moo di daal euh, football final boobu am na daal ay kilifa yoo xam ne daal euh, daanaka nag ñëwoon nañ daal daal di euh, fekki si ki nga xam ne moo di attorney general minister of justice Dawda Jallow bi nga xam ne moom nag moo leen invite wala daal moo leen oolu woon pour daal ñu teewee ko bokk na kili bokk na si kilifa yu si mel ni docteur Ismaila Ceesay minister of communications Nani Juwara minister of petroleum and energy Seyhu Mballo political adviser Mohamed Jawul executive director bu National Sports Council ñoom ñëpp nag daal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 jaa ngeen jëf